xol yi nag metti na ça se comprend parce que li fi am ak li ñu décrire euh, waxuñu sax ruine waaye bu ñu amoon moo boo xam ne moom moo sut ruine moo boobu la ñuy utiliser malheureusement euh, ñu denkoon réew mi euh, caaxaane nañ ko caxat caxate nañ ko def nañ ci lu leen neex ba tey ji dugal nu ci guute goo xam ni kenn xamul foo koy waxee waaye damay ñëw rek dënkal leen ko ndax am na ci sénégalais yoo xam ne effectivement Euh, ñi ngi xaar ngir kat ñu faram fàcceel leen ko lañ fa wax ba tënkal leen ko tënk ko gàtt woo xam ne euh, danañu xam euh, lii nga xam ne moom la ñii doon def tey lan la dañoo def conférence bi juste dans le but wax sénégalais yi makki Sall ak waa këram ñi mu àndaloon fii maanaam jëluñu 2012 jëluñu 2017 jëluñu 2018 2019 la ñu jël ba 2023 boo ko méngalee mën na laa jox lu toll ci ñeenti at rek la ñu jël kon yéen a ngi doon imaginer buñ ko relevé woon jusqu'à deux mille vingt maanaam deux mille liñ ci gis mooy ndekete état bi nga xam ne mooy état du Sénégal mag Sall jiite woon ko mu jiite woon ak ay ministère de finance ku ci mel ni Moustapha Ba ku ci mel ni Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak moom mag sàll ak waa këram ndekete. dañ doon falsifier ay chiffres yoo xam ne ñooy chiffres yoo xam ne euh, moom lañ ko doon jox ci partenaires yi nga xam ne ñooy des partenaires nekk à l'étranger chiffres yooyu moom lañ doon falsifier maanaam di nax sénégalais di leen dox ay chiffres yoo xam ne chiffres yi baaxul la moo tax ñu wax loolu dañuy revenir aat ci chiffres yi ci tënk-tënk bu gàtt mu doon vidéo boo xam ne ñëpp mën nañ ko seetaan boo jëlee de deux 2019 à 2023 ci ñeenti at yooyu Macky Sall ak waa këram ak ñi nga xam ne ñooy régime bi fi nekkoon dañoo waxoon ni lu jëm bi nga xam ne mooy dette publique bi maanaam amee woon na euh, maanaam lu toll ci 65 virgule 9 pour cent ci du PIB fekk te booba dette publique bi mu nga représenté woon lu toll ci 76 virgule 3 pour cent ngir mu gën a leer bu ñu ko dans la généralité lu jëm ci wàllum bor ci wàllum dette wax nañ ne en 2023 Sénégal bor bi nga xam ne moom la amee mi ngi tolloon ci treize milliards sept cent soixante douze euh, millions maanaam treize mille sept cent soixante douze milliards ndekete booba dañoo def li nga xam ne euh, par exemple mooy chiffre yoo xam ne chiffre yooyu baaxul ndax waxtu woowa ndeke suñu dëgg dëgg dëgg mi ngi tolloon ci quinze mille six cent soixante quatre milliards. mu mel nii am na lu toll ci mille huit cent quatre-vingt-douze milliards yoo xam ne lépp nañ ko ñoom ci turu senegal te amul traçabilité déclaré wuñ ko xamuñu nekk fu Sénégal fan la xaalis boobu jaar mu doon nag mbir mu yéeme moo xam ne tey ñépp ñoo ko découvrir donc chiffre ba ñu joxoon di treize mille milliards ndekete suñu bor ak suñu det weesu na loolu ba yegg ci lu toll ci quinze mille six cent soixante-quatre milliards mu am mille huit cent sos 92 milliards yoo xam ne kenn xamul fan la dugg beneen bi nga xam ne aussi def nañ ko lu jëm ci déficit budgétaire déficit budgétaire boo ko déggee mooy tey jii état buy def budget day am loo xam ne moom mooy jëlee moom lay jóge muy jëlee ci recette yi nga xam ne moom la recevoir ci impôt bi wala taxe douanière yi maanaam bu fa waree dépensé ñaari junni maanaam ca la mu war dajale wara a toll ci mille francs mu war a lebi ji maanaam lu toll ci 3000 francs ñoom dañ ne li manque ci li ndekete yoo ñoom chiffre bi ñu joxe ak pourcentage bi ñu joxe doonul pourcentage boo xam ne bu baax la. déficit budgétaire mi ngi tolloon 5 virgule 5 pour cent ci PIB bi ndekete boo xoolee ba ci biir mi ngi toll ci 10 point 4 pour cent jëm ci li nga xam ne mooy ci PIB PIB maanaam dañoo duble bu fekkoon ne fukk moo nekkoon sunu. déficit budgétaire ñoom dañ ko wàññi ne c'est maanaam juróom la mu doon loo xam ne lu garaaw la beneen bi nga xam ne aussi mën nañ ko wax mooy lu dem ci wàllu bor bi Sénégal ku ci nekk xamal fa nga nekk boo nekkee sa kër nga am ay doom am njaboot ñun population bi nuñ toll Macky Sall waa këram lépp nañ ci suñu tur ku ci nekk war ngaa fay lu toll ci neuf cent mille francs mbokk yi est-ce que yéen a nga xalaat loolu lépp nañ ci tur ci lu ñu yëgul xamuñu fu ñu dugg dépense non justifiée lépp nañ ci sénégalais bu ci nekk jël nañ sa tur lu toll ci neuf cent mille francs CFA te nga war ko fay waaye xamuñu dépensé fu mu jógee yemul foofu mbokk yi daam lu ñu tuddee surfinancement surfinancement premier sànq ñëw na ci Abdourahmane Sarr ñëw na fi mooy tey Sénégal dañ ne woon bàyyil nañ ñu fi xaalis bu toll ci six cent cinq milliards ndekete surfinancement boobu nga xam ne FMI moom la ñu waxoon ñoom dañ ko lebi woon ci turu Sénégal waaye bi ñu leb 605 milliards yi dañ ko waroon dépenser en 2024 bii ñu nekk waaye Macky Sall ak waa këram ndekete ba nu jëlee 605 millions yi 605 milliards yi dañ koo dem dépenser ci en 2023 te fekk te dañ ko prévoir woon ci li nga xam ne moom mooy 2024. loolu moo taxoon auparavant nit ñi naan. seen budget baax na am nga leen fi bàyyi fekkate yoo bi ñu ñëwee di xool 605 millions yi fan la jaar France daal di xëddee dugal nañ ko sur des dépenses yu amul benn traçabilité 605 millions milliards yi des dépenses yoo xam ne bokkul ci budget kenn budgétisé ko woon en 2023 mu doon aussi des dépenses yoo xam ni kenn justifié wu ko kenn xamul 605 milliards yooyu fan la jaar mbokk ñi lii la ñu def waaye yemuñu foofu dañoo jël lu toll ci 200. deux mille cinq cent milliards yoo xam ne dañ koy stampiller exclusivement ne ce sont des dépenses yoo xam ne dépenses de sécurité de défense la te kenn xamul les ko justifier waaye yooyu sax nag leneen la FMI mi nga xam ne moom mooy ñëw ak sunu ay partenaires ndekete ñoom données yi ñu doon jël di ko jox waa FMI dañ doon falsifier ay données yi maanaam Sénégal xam leen ne FMI bis ni tey mi ngi xoolee Sénégal dëkk boo xam ne day falsifier ay données ndekete ñoom dañ doon falsifier ay données di ko jox waa FMI ngir FMI di leen mën a jox xaalis lii moo xew mbokk yi bu nu yàlla dimbali lu woon ñuy jóge fi ndax fan lañ jëm beneen question bi ma ciy teg commentaire la ndax ñi def lii tey dem bàyyi ñëw jiyee ji ndax ñii amati nañ kàddu Sénégal ndax campagne yi di ñëw ñii sax nag ñi ci mbokk ak ñëpp war nañoo wër di campagne c'est une question qu'on doit ñii yamuñu woon ci rey sénégalais yi mais dañ ñoo toroxal heureusement ba le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement ci courage Bassirou Diomaye fay FMI bi ñu en mois de juillet war ñu indilaat xaalis dañ ko ne ñun kat duñu jël xaalis boobu li tax mooy buggu bëgguñoo dox ak yow ci wàllum faux dañuy jël sunu ay documents càmbar ko ba mu leer ñu xam ne lii fii ak fii la dem su ko defee ñu mën a tàmbali mbokk yi lii moo xew mu doon lu metti mu doon lu garaaw mu doon loo xam ne tey Sénégal gi ñëpp sëngéem ñii nag ñoo ñu def lii ñoo daxee ñun nii ñoo ñu toroxalee nii ñoo lekkee suñu alal nii ñii nag fii may waxee yow ñoo nekkaat ci réew mi naan législatif yii di ñëw dañoo bëgg a laajaat ay baat réponse bi nag amal ngeen ko seen bopp xamal ngeen ko seen bopp ndax ñii tey war na si na leen di déglu ndax ñii tey warul leen a fekk fa ñu nekk ni ko ministère de la justice waxee kuñ ci topp ku ne ba ñu xam ne yaa def su boobaa danañ la teg daal yi nga xam ne mooy li war Sénégal lii moo nekkoon tënk bi ngir ñu dem ba beneen ñu indil leen ci yeneen numéro jërëjëf